waa panel bi ñu dippee Baie Hann te seen slogan nekk yaraax bu bees taxaw temm ngir dépollution Baie Hann waral ñu posé benn degré foofu ci canal 6 bi nga xamante ne day faral di déverser ay mbalit mu jëm ci tefes bu yaraax depuis 1955 ba léegi Ibrahima Sall kenn la ci membre yi. dañu am initiative di def ay activités de sensibilisation de nettoiement donc eh, lu jëmale ko ci wàllu Baie Hann ànd ci nag ak ñi nga xam ne tamit moom mooy waa ONAS ici présent directeur le 21 septembre ñu ngi fait opération am avec les partis techniques et financiers aujourd'hui ñu retourné gain pour projet Nous la voie pour que nous suite favorable pour la dépollution définitive de la BDA. aujourd'hui nous avons continué pour pause de gré. C'est juste pour voir une volonté communautaire, une volonté participative, un esprit encore d'engagement donc des, des personnes qui nek ci biir dëkk bi di taxaw ci lépp loo xam ni seen seen environnement la te balaa kenn di ñëw donc eh, ñoom dañoo gis ni ñoom ñoo ci njëkk d'abord si biir loolu nag donc vraiment tey ñu am contentement bu mag recevoir suñu directeur ndax lu tax ñu am contentement recevoir ko ndax tey xeex bi yëpp daf ñu soxla woon ay jamono ak ay jamono ñu soxla ko ay jamono ak ay jamono ku nekk jaar fi mais moom ci taxawaayam ci engagement et ak détermination nous ont poussé à ce qu'aujourd'hui nous avons une réussite pour ce projet de pollution de la baie d'Anne. Lassana Gagny Sakho directeur général bu ONAS di rafetlu initiative bi ba nopi di indi ay leral ci projet de pollution de Hann waaw damay commencer remercier initiative bi defena naa lu lu lu la ñun dans le cadre du projet ni ne ñu nit ñi liggéey ci mais ñëpp duggal ci sen loxo Eh, projet bi du projet onas rek defena buñu taxawon ñun ñepp bu yagg ni kon xeyna projet bi sax tay fekk na atuna mais lolu lu passé la dañuy xol ci kanam dal lañ jëm euh en tout cas ñun suñu taxaw moy comme niñu commencé won buñuy dérouler projet bi mais bolé ci ñep mhm. bolé ci ñep moy bolé ci wa an bolé ci wa mbaw bolé ci wa charo ñep ñi nga xamné ils sont impliqués mhm. parce que fokk askan wi nga xamné ñoo ñoom projet bi duggul ci seen loxo Euh, yombalal liguey bi entreprise yi ñetti entreprise yi loolu mooy mën tax projet bi jëm kanam donc li dafa nek lo xamé dañ koy saluer seen bonne initiative euh, fan lañu tollu défé na bu ci yàlla àndee balaa fin septembre liguey bi dina commencer effectivement entreprise bi sax commencé na def ay sondage loolu lu muy wone moy delu ginaaw dotul am dañuy wax projet dépollution bay da rek parce que bu ñuy wax dépollution dañuy tëral yëpp ci affaire industrie mais defe naa am na lu wees affaire industrie mooy pêche bi par exemple. Mm. géej gi yàqu na. moi nit ñi nga xamee ne ay fosse ñoo nekk seen kër am ay problème defe naa loolu yëpp projet bi mën na ko antu mais foog ngeen jàppale entreprise bi projet bi du projet bu yomb projet bi ça va aller dans la durée foog yéen ñëpp lu mel nii répété wu ngeen nekk ben loolu mooy moi a tax projet bi mën a gaaw. Altine Sow nekk troisième adjointe au maire di am mbégte ak fierté ci li nga xamante ne wa an def nañ ko.

muy nit boo xam ne nit bu engagé la wax dëgg yàlla nit bu taxawaayam am solo le maire wax ko partout foofu mu taxaw rek euh, feddali na taxawaay bi nga xam ne Mbacke Seck am na ko muy lu am solo tey jii bu ñu toogee ba teg dégré bi du ma ne moom la mais initiative bi si moom la jógee mu am tamit comité boo xam ne ñoo ko accompagner muy dégré bi comité dégré vraiment ngeen am taxawaay bu am solo loolu nag ñun dañ leen di gërëm ci turu population wu àndale parce que en tant que maire vraiment jàpp nañ ni lii ñu ngeen ko defal parce que dëkk bi ñun ñoo ko yor yàlla teg ci suñu loxo donc lu fi waay def rek ñun la ko defal muy geste boo xam ne bu am solo la bu ñuy bu ñuy bu ñuy félicité xamante ne mooy lu ni mel nag daanaka autorité yu bëri teewe woon nañu ko ku ci mel ni directeur bu ONAS inspectrice police bu Hann Bel-Air adjointe au maire ak femme mareyeur yi waa Croix-Rouge itam teewe woon nañu ko. ba noppi amal fa taxawaay bu mucc ayib. ndax désinfecté nañu foofu yépp ba noppi ñaax na fa nekkoon ngir ñu gën a respecter mesures barrières yi